code pénal au Sénégal code pénal article 319 dafa interdire acte contre nature en voie publique ñaari fecckat fecckatu Wally Seck dañoo dem fecc di fóon ci kanamu plus de 2000 jeunes loolu acte contre nature c'est de l'insulte euh, envers les Sénégalais le Sénégal deux la boo xam dañu am ay valeurs gis nañ fi fecckat bu nekk gis nañ fi gis nañ fi euh, euh, art bu mais mosuñu gis kat dem bay fóonante ay goor ponkolu goor kilifa di fóonante ci kanam ci kanamu xalé yi devoir la si ñun en tant que activiste yuy sam jikko yi bokk ànd sam jikko yi bokk nit deug valeur bokk communauté de défense des valeurs morales ñu jël li ñu yoon may pour jébbal leen ci kanam procureur tek leen ci ci yoon loolu mo tax ñu dem porter ci plainte est-ce que yaakar ngeen ne seen plainte bobu dina aboutir wa mais ñun suñu devoir la def en tant que activiste en tant que citoyen sénégalais respecter institution yi am yaakar ci suñu justice à chaque fois dañu am yaakar rek mais son devoir dem plainte non cest dire ni en fait artiste bu à chaque fois nous remarquer ni chaque deux ans def dañ koy bu koy def ci la koy def ci solum ci doxalinam ci ay invité sol ay drapeau LGBT ay sol solu que le koy def mois de juin chaque chaque deux ans da koy def en mois de juin Garde na fi sol na fi ay sol body sol drapeau LGBT c'est que moi te mois de juin mois la bo xamanteni ci ci la di manifester di di def suis di magal sen gor jigéen ci aduna bi. là, ñun aussi ñu am ci